Djibril Wele maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay Moreau. voilà Djibril Wele nga nekk coordonnateur euh, bu euh, Ligue sénégalaise de lutte contre le tabac ñu gis ni waa LISTAB yéen am na texte bu bees jëm ci wàllum euh, loi contre le tabac boo xam ni dañu ko jàllale ci conseil des ministres ngeen koy ñaawlu est-ce que mën nga ñu expliquer largement lan moo xew exactement. waaw li ñuy lu mooy li nga xamante ni génn na conseil des ministres la dernière fois muy mercredi 4 euh, octobre dañu xëy rek gis ni vraiment conseil des ministre adopté nañ benn texte de décret buy modifier li nga xamante ni moom mooy décret bi 2016 bi nga xamante ni c'est par rapport à la loi de 2014 donc ñu gis ni loolu dañu jàpp ni vraiment euh, dafa nekk loo xam ne warul mën a nekk. pourquoi parce que mënoo jàllale un texte boo xamante ni da koy jàllale te impliqué woo les acteurs yi nga xamante ni ils sont concernés ñoom ñooy acteurs yi acteurs yi mooy société civile acteurs yi mooy programme acteurs yi mooy l' ensemble des ministères concernés malheureusement ñu gis ni vraiment texte boobu jàll na te xamuñu lu ci ne xamuñu lu ci ne xamuñu kan moo ko initié xamuñu kan moo ko porté xamuñu kan moo ne ci ginnaaw donc vraiment suñu ay investigation wane ni ah am nga jamono yële industrie yu ñëwoon na ci gouvernement pour euh, jéem a demander li nga xamante ni moom mooy autorisation pour que ñu mën a commercialiser les produits yu tabac nouveaux mais ñu ne leen loolu bu ngeen def ko il faut ngeen réviser loi 2014 donc au moment où nous étions en train di réviser li nga xamante ni moom mooy loi 2014 pour def ci xeetu cigarette yu bees yi génn def ci li nga xam ne moom mooy ay chicha yu mais ñu toog rek gis benn texte bu ñu jàllale boo xamante ni xamuñu fu mu jóge xamuñu lu ci ne ba pare ñu ngi koy nëbb xam nga loo xamante ni dañ la koy nëbb kon ça na lu ci ne jéem au niveau du secrétariat général ni ñu ne ñu noon texte bi mënuñu ko que kenn numéroté ko dañuy bañ mu am kon da nga naan xanaa kon nëbb donc lu ñuy nëbb noonu nag moom lañ xam xam nañ li ñuy nëbb mais su fekkee waxuñu ko c'est juste en fait que dañu euh, may industrie tabac mu mën a commercialiser xeetu cigarette am yu bees yi nga xamante ni da ko génne yi muy woowee vraiment des substituts ah maanaam joge ci cigarette classique mooy cigarette bi ñu tàmm gis dem ci cigarette électronique yi nga xamante ni xale yi jamono yi ñu ngi koy utiliser parce que ba jamono yële buñ koy jaay c'était vraiment de façon illicite donc pour ñu mën ko commercialiser ba ñëpp teg seen bët ba koo xam ñi nga xamante ni dañ koy jaay te duñu ragal ñu leen koy saisir il faut que mu jaar si ay loi loi boobu nag moom la ñu jàllale en catimini en complicité avec des agents parce que tamit loi texte décret mënul génn ministère de la santé te ñaar ñii yëguñu ko loolu mënta ne muy kan muy ki nga xam ne moom moo jiite euh, euh, bureau législation au niveau du ministère de la santé muy sàmma Ndiaye ak ki nga xamante ni moom moo jiite euh, programme tabac bi nekk ci biir ministère de la santé muy docteur Oumar Ba donc ñaar ñi mënuñoo bañ a ñàkk yëg texte bii nga xamante ni nëbbu nañ ko ñi nga xam ne ñooy société civile acteurs yi mhm. donc vraiment muy c'est des complices ñan la ñuy liggéeyal mais kon kan la ñuy liggéeyal kon xanaa industrie tabac la ñuy liggéeyal parce que lii bu jàllee mooy avantage u industrie du tabac lii bu jàllee du avantage peuple bi du avantage population bi mhm. mais dañuy fexe vraiment ni ñuy euh, fexe vraiment ba jeunesse bi di continuer di loru parce que xeetu cigarette yi du ay mag ñoo koy tux mais ay ndaw ñoo koy tux mm-hmm. donc vraiment muy lu doy waar donc ñuy demande vraiment état ñu mu gën a gaawee su fekkee mën nañu dellu ginnaaw et puis en en également ñu partager li nga xam ne mooy contenu texte bi ñu xam lan moo nekk ci biir ak lan lañu laal parce que ku modifier décret bu 2016 mm-hmm. mooy mën nga laalaale leneen mën nga laalaale leneen loolu la ñuy bañ loolu moo tax vraiment li donc vraiment ñu koy dénoncer ah di di ko wax ñëpp vraiment ñu yëg ko xam ni vraiment Sénégal jéego yi mu defoon de 2012 à maintenant par rapport ak xeexum cigarette si Sénégal mu ngi bëgg a nax saay à travers bi nga xamante ni jàll la. parce que au début euh, Djibril Welle bi ngeen xeexee ba loi bi jàll assemblée nationale gisoon nañ début bi vraiment euh, application bi mu ngi doon woy étape par étape ñu gis ni euh, sax boutique yu bari nangootuñu jaay cigarette njëg yi ñu yokkoon ko cigarette yi ñu si doon def image yoo xam ni dafay décourager jëndkat bi xam nga yooyu nekkoon loo xam ne yéen a ko xeexoon mais dañu jékki-jékki rek yooyu yëpp gisatuñ ko affaire bi application bi bloqué wu euh, tere gi ñu tere woon sax tox si lieu public yi euh, continuer euh, pour yow lan moo xew exactement si diggante bi ba yéen vous étiez bien parti avec cette loi jékki-jékki rek am lu ko xajamal stoppé ko waaw li ko waral. Mhm. vraiment euh, ñaari ñaari ci ñaari pàcc la benn bi mooy euh, état moo dem ba ci biir commencé di bàyyi di bàyyeeku di bàyyi loxo mooy absence de volonté politique bu njëkk état amoon na volonté politique mais dañu dem ba ci biir gis ni vraiment ay yéex yéex muy am ci yenn mbir ngay dugal ay texte ñu koy yéexal di ko di ko di ko euh, di ko di ko vraiment bañ a signé ak yu demee noonu bi ci beneen bi ci topp mooy ministère de la santé dafa am ku li nga xamante ni mooy xeetum cigarette muy programme tabac beneen doyul parce que vraiment am na lu bëri loo xamante buñ ko waree def au niveau de l' état état programme tabac moo représenté représenté ministère de la santé donc bu yëf yi doxul vraiment ñoom ñoo deful li nga xamante ni moom moo war ci li nga xamante ni moom mooy ci euh, xeexum cigarette bi vraiment loolu dañ koy ñaawlu parce que ñun société civile lañ ñun mënuñoo dem vraiment di jàpp kenn. parce que duñu police duñu gendarmerie ñun mënuñoo dem également di tere nit ñi ñuy toog fii ak fii donc loolu rôle état la li ñu mën mooy sensibiliser li ñu mën mooy def plaidoyer te def nañ ko ba am loi vraiment jël également suñu ay moyens di leen accompagner di leen dimbali pour que fexe euh, ñu fexe vraiment ba li nga xamante ni moom mooy xeexum cigarette mu jëm kanam malheureusement lii ñu def nii suñu ginnaaw mais dafay dafay delloo ginnaaw Sénégal Hmm. parce que Sénégal quand même référence la woon ci li nga xam ne mooy référence yooyu donc bu ñu ñëwee ba euh, vraiment ay ay ay pas yu bëri lañ dellu ginnaaw si si euh, Sénégal dafa dellu ginnaaw bu baax a baax ci li nga xamante ni moom mooy xelum hmm. si te lii bu mu jàll vraiment musiba la ci suñu ay ndaw. voilà musiba la ndax organisation mondiale de la santé moo ne. xeetu cigarette yu bees yi dañ ko war a tere ñu ko sax réglementé donc Sénégal bu ko jëlee di ko réglementé ça pose un problème. Mhm. est-ce que Djibril mën nga ñëwaat ak un peu si si mesure phare yi nga xam ne euh, moom ngeen jëloon si wàllum loi anti tabac euh, ponk yooyu est-ce que mën nga si ñëwaat si tënk voilà. waaw xam nga loi 2014 bi vraiment dafa nekk loi bu am solo dafa nekk loi boo xamante ni vraiment lu ci bëri def nañ Sénégal def na ci ay jéego lu am solo. loi 2014 bi moom moo tax ñu tere publicité Sénégal. gisatoo benn publicité fii loi 2014 moo tax vraiment paquet de cigarette yi changé melul comme ni melo melotoon gis nga léegi ay image moo ci nekk ah, ak ay message yoo xamante ni yu am solo la loi 2014 bi également moom mooy tere ñu toog ci yenn bërëb yi même su fekkee du bërëb yëpp ne bërëbu liggéeyukaay yi ak yi nga xam ne dañu fay daje ak yu demee noonu maintenant même su fekkee application yi demeewul noonu mais au moins tey jii euh, comportement yi ñu ngi commencé changé loi 2014 également moom moo tax ñu yokk njëgu euh, njëgu cigarette si à travers la taxation donc muy ay jéego yoo xamante ni vraiment loi 2014 defoon na ko donc tey ñooy gis ni buñ ko bàyyee nii lii di war a jàll moom moo nar a naaxal say loolu lépp te loolu vraiment duñ ko seetaan dinañ ci def li ñu ko war a def dinañ ci wax fi ñu ko waxee dinañ seeti ñu ñu war a seeti vraiment pour que vraiment ñu mën a dellu ginnaaw ñu gis ni aussi euh, li ñuy wax euh, chicha mi ngi def ay ravage te di ngeen di wax ni si seen wàllum sensibilisa sensibilisation que chicha moo gën a bon fukki yoon li nga xamante ni moom mooy cigarette lan nga ñu mën a wax si mbir moomu la waaw xam nga chicha ba ñu defee ay enquête dañu gis ni vraiment Sénégal téeméer ndaw téeméer xale yoo jël juróom-ñeent juróom-ñeent fukki dañ koy jëfandikoo chicha muy phénomène bu bees muy xeetu cigarette boo xamante ni bu bees la xale yi di ko jëfandikoo ñun ñu fexee vraiment ba jël benn texte ñu tere ko mais euh, am am am vraiment ñu bloqué texte bi au niveau du secrétaire général du gouvernement loolu la ñu bëgg xanaa kon loolu mooy xare yi nañ continuer di dox di def leen neex donc di di di di di am di am ay jafe-jafe donc vraiment euh, chicha moom ak yeneen xeetu cigarette yi ñoom ñoo yem. chicha benn séance boo jël c' est l' équivalent de cent cigarettes mooy juróomi paquet de cigarettes donc loolu wax nañ ko état waxati ko état donc xëy na état moom moo bëggul réglementé état moom moo bëgg a bàyyi ñi nga xam ne ñoom ñooy lobby yi ñi nga xamante ni ñoom ñooy yëngu ci njaayu njaayum chicha mais di def seen business yàggul dara def nañ benn descente ci dix huit restaurants de Dakar saisir ay milliers de chicha malheureusement pression jóge ci kaw ñu fexe ba delloo yenn yi kon ça veut dire que suñu vraiment euh, euh, santé population bi ak ndaw ñu soxal ko li ko soxal mooy intérêt industrie tabax te loolu vraiment dañ ko dégg que moom moo am. voilà euh, dernière question Djibril euh, wele lan moo war a tax ñu xeex wàllum tabac chicha ak ñoom seen lan moo war a tax ñu xeex ko. waaw li tax ñu war a xeex tabac c'est parce que dafa nekk drogue d'après organisation mondiale de santé. et du n'importe quelle drogue drogue la boo xamante ni boo ci duggee boo ci bëggee génn jafe-jafe lay nekk ci yow bi ci topp mooy drogue la boo xamante ni li muy rey ci àdduna bi amul benn feebar bu koy rey ci àdduna bi fukki million doomu adama dina ci faatu at bu ne beneen bi mooy ñi nga xamante ni duñ tox daanaka un million cent chaque année dinañ ci faatu ñoo xamante ni toxuñu dañ leen xër cigarette saxaaru cigarette kese sans compter également yeneen jàngoo yeneen feebar yu nga xamante ni donc mën na ko indi loolu nag wax dëgg yàlla loolu rek doy na vraiment pour jël ay mesures loolu rek doy na pour xeex li nga xamante ni mooy cigarette malheureusement loi bi texte texte décret bi bu ñu ko bàyyee mu jàll loolu mooy naaxal saay yi lépp luñ jot a def ci wàllu boobu. merci beaucoup Djibril wele en tout cas ñu ngi lay remercier ci tont bi nga tont suñuy laaj. may fàttali ni Djibril Welle yow yaay coordonnateur bu Ligue sénégalaise de lutte contre le ñu gën ko xam ci Lista.